ba Kébémer asalaamaaleykum mbokki Kébémer ñoo ngi jooy ndax Ousmane ñoo ngi jooy nuyu nañ leen bu baax a baax a baax di leen ziara di leen jaale Chérif Talibia mi fi bawoo di ñaan yàlla yërëm ko te jéggal ko ñaan yàlla yàggal sarax bi suñu loxo Kébé maire sama wax fii du gudd du bëri ndax yàgg na fee jaar yàgg naa fee ñëw naan leen Kébé dañoo soxla seen wot ñëw nañ fi ñëwaat fi ci élection locale 2022 ñëwaat fi ci élection législative ngeen doog ne waaw

Nous dajé fi ci waxtu wi mo waxat len li di wax nangul voté à une écrasante majorité pour le président Bassirou Diomaye Faye kon s'est inscrit résolument et depuis quasiment élection législative 2022 voilà quasiment depuis élection législative 2022 da ngeen bokk ci ñi nga xam ne fii ci Sénégal dañoo bindu ci logique bi nga xam ne gannaaw yàlla dara mënatu koo téye mooy cette dynamique de changement structurel profond et définitif de notre système politique mais également de la gestion de notre État moo tax ma gëm nag ni gëw ma ni waa Kébémer dinañu joxe bopp gëw ma ni waa Kébémer nañ joxew bopp il y a juste sept mois ci gannaaw ñi ñëwaat tey ñuy jox ñuy rocci seen loxo kon li ma leer ba leer mooy Kébémer doonte nekkatuñu intercoalition ndax am na yeneen parti yu ñu askanalee Kébémer te muy yoon waaye gëm naa ni bii paa Kébémer dina def le choix lucide de voter exclusivement ou alors pour une majorité écrasante pour la liste de Pastef bi nga xam ne man ma tête de liste bi wante ñun bëgguñu waa Kébémer yem rek ci voté jox ñu majorité dañoo bëgg buñ ñu majorité ñu jël ñaari député yi ñu am ci marge bu rëy

ñong ko fassiyene def dimanche insha rabbi fele ci mbacke te gëm na ni ñu bari ci yeen di ngeen ko téwé motax pour le moment mané wax ji mën na baña gudd wara wara mën na mën na baña bari la ci am solo rek moy ñu confirmer ñu confirmer lañu defoon 7 mois ci gannaaw nga xamne bi ngeen ñuko joxe legi lañu nekké ci réew mi ci jubbantiko ko parce que bâtiment boko fekke musu fa nopi bala ngay tegat ay bil dang koy jubanti phase jubanti bobu ñu nek te bok na ci liñ leen wax yépp ci liñu yak ci rew bi bok na ci liñ leen ne nak assemblée bi di lañu permettre mbiri gëna leer parce que ku fi won ministre wala lu raw ministre sax ci assemblée bobu lañ ne mëna woyé nga ñew layok askan wi lolu est ce que ngeen ñu woyé ko bëgg ngeen bu ñu jógee ci mbii ku ñu dénkati ci réew mi di nga liggéey li nga war a liggéey ci loolu mais doo randal alal réew mi kon kebe maire man aw ma sikki sàkka te am naa fi sañ-sañ nag te xam ngeen pourquoi aw ma sikki sàkka ni au soir du 17 novembre nu ma tuuti tuuti kebe maire dina joxe 75 wala 80 à la mu des nag mu des nag li Mor Talla wax sànq Louga mbir mi bi ñu door rek léegi dafa mel ni boo xoolee campagne bi nu mu tëree rek mbir mi farankulaay na bu yàgg waaye nag naagu baaxut moo tax waruñoo naagu des na neuf jours de campagne dama bëgg neuf jours de campagne yooyu ngeen campagne ko

village ak village gare routière yi dem len ngeen continuer campagne bi té ñom li ñuy wër di wax lakkante suñu nonu di essayer normal xelu askan wi lepp lu ñu déconstruire lepp lu ñu wax lu dul deug de matin ngeen déconstruire ko le soir parce que nonu lañuy fexé ba nit ñi ñu délo ci len délo sen xalat est-ce que pare ngeen ci lolu kon Kébémer ñaata ngeen ma garantir le 17 man dama gëm dara léegi xam ngeen yeneen ak may suivre ci campagne bi yëpp dégg ngeen dégg ngeen challenge bi nga xam ne moom laa lancé te nag may suivre campagne bi yëpp dix premiers départements yi départements, les 10 qui sont classés parmi les 10 premiers sur 46 départements, nous avons un spécial pour les gens. nous suis un homme parce que le maire est un homme. Je suis un homme qui 10 premiers. Nous suis un homme qui est 3 premiers. Donc, je suis un homme qui est en dans le dynamisme ngeen bañ a bàyyi seen loxo ànd ak seen investi dugg ci milieu rural bi wax ak nit ñi waaye continuer dugg ci gër yi wax ak nit ñi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen souhaiter une bonne fin de campagne asalaamualeykum wa rahmatullah